يوم تحقق جوهر الإنسان وركبت نحوك ظهر كل عجيبة من حكمة ومليحة الأوذان والشوق فيك وهمتي في رغبتي بمجاهل الآيات قد قاداني ما منطق إلا ودون تعاقل ما عبرة إلا ودون بيان فتزودت نفسي بكل بديعة وبدائعي تبقى على الأزمان ورأيت أنك للرسالة حامل wa raaytu annaka baadu sirru amaani hada nidaamuk fi lkitaabi muqaddas xad kalla gayruka anhu bil ityaani طبقته وفق الزمان وحكمه وعصمته بعناية وضمان kilifa gaa ngi noonu ah moom mi nga xam ne moom la ñu yaakaar moom mi nga xam ne moo yanu mission wu yonent bi ki nga xam ne moo révolutionné tariqa bi ki nga xam ne moo wane ni xam-xam du doon kaddu ki nga xam ne ni moo wane ni xam-xam du doon lu nit di wane nii kese waaye jëf la boo xam ne da nga koy jëf nit ñi topp la Cheikh Mouhamadinil Moustapha si mi nga xam ne moo contribuer concrétiser li nga xam ne mooy mission wu maam Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum moom mi nga xam ne moo mat njaboot moo mi nga xam ne moom maam Babacar Sy moom mi mat njaboot Seydi El Hadji Malick moom mi mat njaboot Cheikh Omar al moom mi nga xam ne moo mat njaboot Cheikh Mouhamadinil Ghali waaye mat njaboot Cheikh Ahmed Tidiane Chérif al Fatimi mat njaboot yonente bi salallahu alayhi wa sallam mat njaboot suñu borom parce que dañ ko koy gis nga xam ne innahu yata addabu maal xaq ki nga xam ne buy dox ënd du jug buy dox jaww ji taxaw buy wax doo yëg teg ñàkk teggin buy waaxu nga yëg ni teggin baa ngi fi donc ñun kii la ñu yaakaar tey nag gis nga ko mu ngi dalal euh, gan yi ñuy rafetlu li nga xamante ne moom nga euh, mu ànd ak maam jagleel ko Serigne Mouhamadou Moustapha Sy ci ci bi ci biir euh, chapiteau bi waaye ci ñi nga xamante ne noonu la maye njaboot gi itamit ñu dundaat moment yi parce que ku ci nekk dafa am lu muy def ci yow ci diggante dox bi muy dox ba keroog muy dugg si ba agsi ci bërëbam comme ni nga ko waxee itamit def ci ànd ak Serigne Cheikh Ahmed Tidiane si capitaine mhm. ànd ci ak euh, Mame Babacar si ñu ñëw fas yéene ak njaboot gi ñenn ci responsable yi imam Moussa Gueye ñu gis tamit tonton Cheikh euh, Meng wala imam Cheikh Meng waaye tamit président Alioune Mamadou Dia oustaz góor gi Baye Pen moom itamit ñoom ñëpp gis nga jiite tey ji dafa yor ay ndaw yoo xamante ne ñu ngi ci politique bi yor ñoo xamante ne ñooy ay imam yor ñoo xamante ne itamit secteur boo mënti dem jabar Serigne Moustapha Sy mu ngi fi mhm. te 78 mhm. ak léegi mhm. ah, ci ku bi njaboot gi mbégte contentement fierté la ñu daal di am euh,

ku xool li ñu mel Serigne Cheikh Ahmada Tidiane Sy Al Maktoum noonu la ko doon defee Serigne Moustapha Sy ci ay gàmmu ci ay jotaay yu ni mel coordination bi téyante loxo bi ba ci bërëb bi nga xamante ne foofu la njaboot gépp toogee tey Serigne Cheikh Ahmada Tidiane Sy capitaine moom moo koy def ak Serigne Mouhamadou Moustapha Sy waaye tamit ànd ceeg euh, Mame Babacar Sy mu nekk loo xamante ne daanaka Serigne Cheikh la ñu am Serigne Moustapha ak Mame Babacar Sy Pape Mor Lo sànq dama ko wax wa raaytu annaka li risalati xaamilun wa raaytu annaka baadu sirru amaani maam Cheikh Ahmed Tidiane si almaktum dafa wax Cheikh Ahmed Tidiane Chérif il Fatimi muy tudd fa tazawada nafsi bi kulli badiatin wa badaa'i tabqa ala al azmaani moom dafa wax ni Cheikh Ahmed Tidiane Chérif yàlla dogal na ni man maam Cheikh Ahmed Tidiane si almaktum lu ñu waroon a peeg ci xeetu xam-xam peeg naa ko lu ñu waroon a maîtriser ci cadre logique maîtriser naa ko lu ñu waroon a maîtriser ci enseignement maîtriser naa ko waaye ba ma demee xool yëpp daa xam ne wa an naka waara aytu an naka li risalati xaamilun cheikh mouhamadinil moustapha si ku waxal yàlla xam ne ra'ay naa bi annahu li risalati xaamilun ndax moom moomu moom moo waaye wa ra'ay naa bi annahu baadu sirru amaani parce que am na sirru boo xam ne nit du ko du du ko du ko manifester nekk ko parce que ñoom mag am nañu la bu toll ni ku woote ci ñoom kilifteef wala nga woote ci ñoom benn daraja boo amul ci wàccee la te wax dëgg yàlla moom mi wootewul daf ko nekk moo tax ba nekkee nag dafa normal dafa naturel nekk li mu ko c'est très naturel de le voir aussi éduqué de le voir aussi beau ndeysaan xoolu complicité bi. bu <laughs> mel ni lu ni mel yàlla yàlla moo tali wallaay ndeysaan njaboot gi ndax gis nga njaboot gi kenn ku ci nekk yaa ngi wane sa contentement waaye itamit fierté bi nga am ci Serigne Mouhamadul Moustapha Sy doon sa Serigne njaboot gi kenn ku ci nekk yaa ngi wane sa mbégte sa contentement ci euh, fierté bi nga am kii di Mame Cheikh yi Tidiane Sy capitaine doon sa capitaine comme niñ koy waxee waaye tamit mbégte la ñuy gis euh, sang bi ci anam euh, bu ni mel ndaxte Pape Mor Lo comme ni ñu ko waxee léegi rek instant bi nii Moustarchidines yi ñii ñu ngi bég ñu ngi kontaan waaye dañuy fàttali rek ne ci jotaay bi chaque instant est un moment de méditation et de contemplation de l'unicité de Dieu unicité de Dieu doonoon thème boo xamante ne Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy alxutbul maktum daanaka bi mu ñëwaatee parce que tamit Serigne Cheikh toogoon na jékki-jékki retrait ci yenn ci conférence yi la demee woon France en 1995 ci la ñëwaatee Sénégal mais daanaka temam yëpp temam yëpp ci unicité de Dieu la daa daal di accentuer ba keroog muy ñëw commencé ah, gàmm ji dugg ak ñun nag ci ay thème ci ay ci ay thème pour wax la li nga xamante ne tey moom la ñuy dundaat ci biir Sarr ah, jagleel ko Mame Cheikh Ahmed Tidiane Sy capitaine jagleel ko itamit Serigne Mouhamadoul Moustapha si ak euh, njaboot gi ni nga xamante ne moom lañ nekk di na dafa mel ni njaboot gi namoon nañ ko torop booy xool rek moom tamit nga xam ne namoon na njaboot gi yàlla xam noo ko weeru koor gépp kenn collégé wul kenn université ramadan wul wax dëgg yàlla métti woon na dorom nag campagne neex na waaye métti woon na wax dëgg yàlla ñëw gis ko rek beneen mbégte lay doon wax dëgg yàlla nga xam ne rek di ko ñaanal rek yàlla ko yàlla may wér gi yaram yàlla may ko gudd fan yàlla may ko mu gunge di fi nekk di ñu di ñu jàppale ci mission yi yàlla na ko yàlla jàppale yal na ko yàlla sàmm yal na ko yàlla aar musal ko ci bépp pexem noonu. waaw ah, kay Pape Mor dafa mel ni waxtu bi jot na parce que mise en place vingt heures la woon vingt une heures waroon yëf yi waroon tàmbali ñu bàyyi la rek nga clôturer ñu soog a dugg ci saal bi. ak kilifa kilifa gi plateau bi. <laughs> plateau bi <laughs> plateau bi sax am na clôture nañu bàyyi góor gi rek ah l'essentiel mooy yàlla na ñu yàlla may ñu dégloo ko ak euh, nopp yu ko jar xol bu ubbeeku ñu déglu ko dégg ko jëfee ko. yàlla nañu yàlla may xolu nangu ak xolu bëgg-bëgg nangu. yal na yàlla nangu ñaan yi ñu teewlu kilifa gi ak li xew ci biir salle bi yëpp ñu gi ngi waat ak yéen di leen euh, bàyyi rek ñu suivre li ci biir saal bi ak euh, sëriñ Mouhamadul Moustapha Sy Mame Cheikh capitaine ak mboolem euh, ñi chargé li nga xamante ne mooy programme tey bi. ndigalu sëriñ bi. seydi wa mawlaaya cheikh sayidi Mouhamed El Moustapha Sy jaarale ko ci capitaine ñu bokk jàng fatiha jàng juróom-ñetti suuratu Quraysh ayatul kursi falaxi ak naasi salaatul fatihi ñu tijjee ko jataay bi incha allah